nga xam ne set na mu dem sangu ji waxoon nañ lépp li nga xamante ni nag moo si aaju muy continuer si yax ba léegi mu ne raatu mu xam gis na ko baax de yow min ginnaaw bis aw yow may ni wala ñaari bis aw saxaatan wala ab heure su ma inaa wadaha topp mu mm, dellu ji aw raat wala mu gis sufratum gel-gel aw kudratum wala tëkk-tëkk tarakati na bàyyi asalaatu julli summa isaa in xataa topp dagg ana ci moom xatasala na sangu wasalatamu julli nee na nag moo xam li mu gis noonu ba rek moo xam ginnaaw bis da gis wala ñaari bis wala ab heure wala moo xam gelgel la gis wala tëkk-tëkk tëkk-tëkk nag wax nañ leen mooy raxasitu yàpp loolu bu fekkee ne gisagut ñaari màndarga yi maanaam mooy ñooy ak fendim pëy boobaa moom sangu waragut ko waaye bu demee ba gis ñooy wala fendim boobaa na xam ne set na boobaa dafay war si moom mu sangu boobaa dafay war si moom mu sangu mu ne walla maa kaanat ba mu nekkee saraa bi lay wax mu ne wala maa kaanat ba mu nekkee alxaay du gi tuqaatu di wàqwante sangu bi mujarradi ruyatiha si rafle gis gis alaamatu tuuri mandargay laab xaala wax na mu ne raatu gis na ko ay lus na mu maam wala nga xamante ni sakara tudd na ko minal xasati su ñooy aw jufuuf wala fendim pëy mu ne baax di yow mi ginnaaw bis aw yow may wala ñaari bis aw saatin wala ab heure nee na ñu kii bu fekkee ne dafa gis màndargay làpp mandargaay laab nag mooy comme ñu jàngoon si ginnaaw mooy ñooy wala fendim pëy ñaar yooyu ñooy mandargaay laab bu fekkee nit ki dafa gis mandargaay laab moo xam ginnaaw bis la gis wala ñaari bis wala ab heure boobaa da jàpp ne set na mu dem sangu ji mu ne wal maxanaa lay maxanaa annal xaa it na aji mbërëg gi mataara at bu gisee alaamatu tuuri mandargay laab waa xadara tamu teew waxtu salaat waxtu war alayhi ci moom alxusu sangu nee na nee na lay maanaa nag mooy bu fekkee ne nit ki dafa gis màndargay laab ci waxtu bu julli maanaam waxtu julli bi teew na moom gis na màndargay laab boobu dafay war si moom mu dem sangu ji waa nañ leen màndargaay laa bi nag mooy mu gis ñooy wala fenni pëy mu ne waaye bu fekkee ne nag moom misaal ci subaar moom maanaam dix la dix la gis màndargaay laab boobaa moom du war si moom mu dem sangu ndaxte booba waxtu julli bi jotagut waaye bu ñu demee ba waxtu julli bi jot boobaa dafay war si moom mu sangu ji bu fekkee ne waxtu julli bi dafa dugg boobaa moom gis na foofu màndargaay laab boobaa sangu moom daf koy war waaye bu fekkee ne waxtu julli bi dugguñ si mu gis mandargay laab booba sangu du ko war mu ne sa sawaabul moo xam in xataa dagg na addam mu deret ja baax da istimraar yi ginnaaw bu mu naa naasi leen di wàcc yow man bis aw yow may ne wala ñaari bis aw saatan wala ab heure li an nal xarit ndax mu rek laa xaddi déet ak doy la zamani ñeel lu gën a néew si jamono nee moo xam deret ji dafa dagg di wàcc muy wàcc noonu moo xam bis la wala ñaari bis wala ab heure boobaa moo xam boobaa bu fekkee ne gis na màndargay laab rek dafay war si moom mu dem sangu ji dafay war si moom mu dem sangu ji bu fekkee ne waxtu julli bi dugg na boobaa dafay war si moom mu dem sangu ji ndaxte mbërëg am ndax ndaxte mbërëg déet ak doye si li nga xamante ni moo gën a néew mu ne bala ñoo dem nag ñu taxaw fii mu ne jigéen ñi gis mbërëg ñoom ñetti xaaj nañ mooy ki xamante ni dafa commencé gis mbërëg ak ku ko baaxoo gis ak ku ëmb di gis mbërëg ku ëmb di gis mbërëg nag loolu nit ñu wutee nañ ci ñii ne leen jigéen mën na ëmb di gis mbërëg ñii ne leen jigéen bu ëmbee du gis mbërëg ndaxte mbërëg boobu noonu dafay wane na jigéen ki ëmbul waaye ngir mi nangu nañ ne jigéen mun naa ëmb di gis mbërëg bu fekkee ne ki nga xamante ni dafa commencé gis mbërëg kooku lu gën a bëri si suuram mooy fukki fan ak juróom bu fekkee ne mbërëg gi dafa ñëw toog juróomi fan dagg li avant mi mataat yeneen juróomi mi mataat yeneen fukki fan ak juróom mu ñëwaat boobaa moom day tàppe ba mu mat fukki fan ak juróom feeg matut fukki fan ak juróom daal dafay tàppe dafay tàpp ba mu mat fukki fan ak juróom waaye bu fekkee ne mbërëg gi dafa dagg lim ñëwaat matul fukki fan ak juróom misaal lim ñëwaat mën na fukki fan ak juróom ci wax ju gën a wér ñee loolu mbërëg bu bees la bu fekkee ne dafa gis mbërëg fan ak juróom mu toogaat li nga xamante ni mën na fukki fan ak juróom mu ñëwaat ci wax ju ñu gën a jàpp wax ju gën a siiw mooy na loolu mbërëg bu bees la waaye bu fekkee ne dafa toog li nga xamante ni mooy fukki fan mu ñëwaat ci waxu Ibnu Habib loolu nee na moom mbërëg bu bees la waaye bu fekkee ne dafa toog juróom-ñetti jour mu ñëwaat wax suux noonu moom nee na loolu mbërëg bu bees la moom nee na loolu mbërëg bu bees la kon ki nga xamante ni moom dafa commencé gis mbërëg kooku lu ëpp si suuram mooy fukki fan ak juróom fekkee ne daf kaa gis juróomi fan matagul fukki fan ak juróom kooku dafay tàppe ba mu mat fukki fan ak juróom waaye bu fekkee ne dagg na moom dafay sang julli waaye bu fekkee ne dagut dafay tàppe ba mu mat fukki fan ak juróom waaye bu fekkee nag dafa dagg mu ñëwaat li nga xamante ni mën na fukki fan ak juróom lool bu fekkee dafa am fukki fan ak juróom taggul mu dagg mu ñëwaat diir bi nga xamante ni lu mu ñëwaat man na fukki fan ak juróom lool ci lu gën a siw mooy loolu mbërëg bu bees la waaye bu fekkee ne lu ñëwaat fukki fan la boobaa si waxu ibnu habib mooy ne loolu bu bees la waaye fekkee ne dafa dagg toog lu mat juróom fan mu ñëwaat loolu ci waxu suuf noonu loolu mbërëg bu bees la kon ku commencé gis mbërëg loolu mooy atteem bu fekkee ne ki nga xamante ni dafa baaxoo gis mbërëg kooku moom dafay topp aadaam kooku moom dafa am aada misaal bu fekkee ne aadaam juróomi fan la mu ñëw juróomi fan mu dagg boobaa day sangu julli waaye bu fekkee dafa ñëw juróomi fan daggut dafay yokk ñetti fan bu daggee mu sangu julli bu daggut mu sangu julli naka doon tamit bu fekkee ne aadama dafay dikkale léegi-léegi mu nekk juróom-ñaari fan léegi-léegi mu nekk fukki fan bu ñëwee juróom-ñaari fan daggul day muñoon ndigu fukki fan fi ñëwee fukki fan bu daggee mu sangu julli baax bu daggul mu yokk ñetti fan bu daggee mu sangu julli bu daggul tamit mu sangu julli moom daal ñetti fan lay yokk ñetti fan moom bu ko yokkee bu fekkee ne daggut dafay sangu julli bu fekkee ne dagg na tamit dafay sangu julli na doon tamit xam nga nit ki lu ëpp gis mbërëg fukki fanag juróom la bu fekkee ne dafa jege fukki fan juróom misaal comme mu nekk quatorze jours fekkee ne dafa ñëw quatorze jours daggut boobaa moom fekkee ne moom aadaam quatorze jours la mu ñëw quatorze jours daggut boobaa benn fan kese lay yokk ndaxte du romb fukki fan ak juróom benn fan lay yokk bu yokkee benn fan boobu daggee mu sangu julli bu daggut mu sangu julli naka doon timit bu fekkee ne dafa jege quinze jours comme mu nekk treize jours boobaa bu ñëwee tamit douze mu boobaa bu ñëwee ñaari fan lay yokk bu daggee mu sangu julli bu daggul mu sangu julli kon nit daal moom buy yokk trois jours rek lay bu fekkee ne moo bu fekkee ne adam cinq jours la tamit bu ñëwee cinq jours daggu trois jours kese lay yokk du fi nekk di yokk yeneen trois jours trois jours ba mu mat quinze jours moom bu fekkee ne adam cinq jours la ñëwee trois jours rek lay yokk yooyu bu yokkee bu daggee mu sangu julli bu daggu mu sangu julli du fa nekk di yokk trois jours trois jours ba mu ba yegg jours ba mu benn trois jours lay yokk bu si yokkee trois jours bu daggee mu sangu julli bu daggul tamit mu sangu julli naka noonu tamit ki nga xamante ni dafa ëmb di gis mbërëg ku ëmb di gis mbërëg kook bu fekkee ne matagul ñetti weer ci wa borom laxdari wala matagul ñaari weer ci waxu borom siraaj boobaa moom bu fekkee ne ku baaxoo gis mbërëg la atte ku baaxoo gis mbërëg lay yor bu fekkee ne ku commencé gis mbërëg la atte ku commencé gis mbërëg lay yor waaye bu fekkee ne mën na ñetti weer mën na ñetti weer kooku moom lu ëpp si lu muy gis mbërëg mooy ñaar fukki jour ñaar fukki jour moo ëpp si fan yu muy gis mbërëg bu fekkee nag bëreeg gi dafa dagg si diggante ñaar fukki suur yooyu mu ñëwaat li nga xamante ni matul 15 jours boobaa moom dafay tàppe ba mu mat 15 jours waaye bu fekkee ne lim ñëwaat mën na 15 jours dafa dagg lim ñëwaat mën na 15 jours loolu bu fekk boo jàppee si wax ju gën a wér suñu gën a jàpp mooy lool loolu bu bees la wala wala naka doon ci bu fekkee dafa dagg lim ñëwaat mën na fukki jours ci waxu Ibn Habib loolu mbërëb bu bees la wala mu mat 8 jours si waxu suuf noonu loolu tamit mbërëb bu bees la waaye bu fekkee ne matul 15 jours moom dafay tàppe ba mat 15 jours dafa doon timit ñeenti weer juróomi weer yëpp kook ñaar fukki jours moo ëpp si li muy gis mbërëg waaye bu fekkee ne dafa dem ba nga xamante ni 6 weer la koog moom ba ba muy juree doom koog 30 jours moo ëpp si muy gis mbërëg 30 jours moom moo ëpp si muy gis mbërëg naka noonu bu fekkee ne. dafa dagg si diggante trente jour yi mu ñëwaat li nga xam matul quinze jours loolu dafay tàppe ba mu mat quinze jours waaye bu fekkee ne mën na quinze jours mu ñëwaat loolu mu ñëwaat li nga xam mën na quinze jours loolu lu ëpp ci liñ gën a jàpp ci wax ju gën a siiw mooy ne bu bees la waaye tamit naka noonu tamit bu fekkee ne ba ñëwaat li nga xam fukki jours la loolu ci wax Ibn Habib mbërëg bu bees la naka noonu tamit bu fekkee bu ñëwaat juróom-ñetti jours la loolu tamit mbërëg bu bees la kon ki nga xamante ni dafa ëmb di gis mbërëg lool wutee nañ ci waaye ngir mi nangu na ko kon kooku loolu mooy atteem mu ne mu ne wa amma bi ak aksarin waaye leeral lu gën a bëri fa addawu doyam xamsatu asara yow man fukki fan ak juróom la li man ñeel ki nga xamante ni tamaada ko dina ne bi ci moom nee na ki xamante ni moom deretam dafay génn maanaam ki nga xam dafa yor mbërëg mbërëg gi génn kooku lu ëpp si lu muy gis mbërëg fukki fan ak juróom la wax naa leen mooy bu fekkee ku commencé gis mbërëg la wala ku baaxoo gis mbërëg kooku ñooñ lu ëpp si ñu gis mbërëg mooy fukki fan ak juróom wa ma bixtibaaril xaariji waaye leeral luy génn fa lawu ñeen la ko xaddun tooye bixtibaari aqal lii ci xalam ak lu gën a néew woo moom alxatru mooy toq-toq wala xadd déet ak dooy lawu si xalam lu gën a bëri nee na bu fekkee ne nag mbërëg gi dafay génn kooku moom lu gën a néew si lu mu gis mooy toq-toq waaye lu gën a bëri amul doye lu gën a bëri amul doye naka noonu tamit bu fekkee ne laablu la laablu moom naka noonu tamit fekkee ne laablu la kooku fekkee ne laablu la kooku li li gën a néew boobaa kooku lu gën a néew mooy fekkee ne laablu moom kooku lu gën a néew 15 jours la waaye li gën a bëri amul doye waaye bu ko gisaatee avant quinze jours loolu moom feebar la kon laab moom lu gën a néew 15 jours la waaye lu gën a bëri amul doye kon loolu lañ jotoon indi si darsu bi lépp lu si jub si yàlla la lépp lu si dëng suñu gàtt xam la in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh